au sein de la coalition Diomaye Président Aminata Touré le superviseur de la coalition est-ce que foofu amul contradiction amul benn contradiction politique dafa am réalité ah amul benn contradiction ah oui gis nga lu italien yi di wax mai dire mai foofu lay amee sens jamais dire jamais mai dire mai parce que gis nga politique amul contradiction ñun bi ñuy def coalition Yewwi Wallu muy coalition boo xamante ni tey ça nous a permis ñun ñëpp euh, Sénégal am ci ñun yaakaar ñu revivre à quatre vingt pour cent man ci coalition Yewwi Wallu la la génne comme député ku nekk xam na ni bi élection municipale yi ñëwee on a eu un écart de trois cents voix entre le l'APR ak le PDS dans le département de Pikine j'étais la dirigé par le docteur Cheikh Dieng te boobu Wallu Yewwi euh, jàppale wuñu parce que amuñu woon candidat